bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sénégal set ci seen jataay bii mu tuddee Oustaz Sall en ligne dellu si na di ko defal si sa sàll en ligne benn yoon ngeen koy am ci ñaari ajjuma ajjuma ji weesu nag daf noo fekkoon nu nekkoon bitim réew yàlla def nu xawoon na sori moo nu teewoon teew ci jataay bi xam naa jéggalu nañ leen ko jëmbul jéggal ngeen nu sa sàll en ligne ñetti xaaj lay doon benn xaaj bi mooy bi may bëgg a def nii waxtaane tam xarit ak bind yi ci am beneen xaaj bi mooy dalal sunu mbokk miy jóge ci rédaction bi bu ñëwee ñu ànd ak moom jataay bi ci ay laaj yu muy jëme ci ñun ñu jéem caa tontu laaj bu yomb ñu tontu ko bu jafe ñu gàntu ko bu ñu noppee ci ñaareelu xaaj boobu ñëw ci pàccub ñetteel bi te mooy bi ci mujj mooy ñi doon seetaan ci biir réew mi ci bitim réew te am contribution yi ñuy def ci jataay bi wala ay question yu ñu jëmale ci jataay bi ñu woote ci 77 883 41 83 bu fekkee euh, buumu jokkaloo gi jàppandi na Oustaz Sall en ligne 18 lay tàmbali 19 lay jeex jaajëfal nañ xale yi nekk ci kër gi di liggéey liggéeyu rafet yi te du ngeen leen gis ñun ngeen di gis waaye bu ngeen nu gisee te gisuleen leen leen ñoom seen liggéey a tax ngeen nuy gis nun te du ngeen leen gis ñoom yal na yàlla sàmm ñëpp jàppale ñëpp aar ñëpp def jàmm ci réew mi ak réew yi wër ndox mi nga xam ne mi ngi wàcc ci dëkk bi te bari lool te mu yéeme lool ndax nun fa nu dee paare muy daaru cubb jaar rab ba nu ñëw ci rajo bi gisuñu toquk ndox <laughs> waaw gisuñu toquk ndox nun nag la yàlla fi yëf yi ndax moo ko moom daa moom yëf yi moo tax nu ko neex la koy doxale mbokk yi xam ngeen a ashura wala tamxarit ci événement yi adduna yi la bokk dañuy wax sax événement réew mi waaye ci événement adduna yi la bokk te saa bu li muy tekki mooy daaw ak ren lu ne xew na fi ashura ab dat la boo xam ni ñu ngi natte dox bi ci doxinu weer wi weer yi mooy doxe noonu ñu ci natt ba jeexal wenn weer jeexal ñaari weer ba am fukki weer ak ñaar daa teg fële duggaat yeneen fukki weer ak ñaar yiñ dugg yàlla nañ ko àggale ak jam ñoog ñu ko àndal ñëpp yu génn la cay xajam-xajam mbaa mu cay njuumte mbaa rëcc-rëcc borom bi tabaaraka wa yàlla na jéggale lépp effacé ya ca baaxut accordé validé ya ca baax te gonfale ko ba ñun ñëpp ñu mën koo jëriñoo fii ci àdduna mën koo jëriñoo àllaaxira ashura tamxarit weer wi tër te ba am ay fan tey waaye xam nga nun sunum réew jàpp nañ ne ci bisu fukkeel bi ci la at mi tàmbali fekk at maa nga tàmbali ci ba weer ba weer wi duggee rek la at mi tàmbali yi fi xew yépp na xew fi ngeen ndokkeel réew mi nga xam ne ci fan yii lan jogoon di tànn lu jëm ci ndawi réew mi ñu leen di tudde ñun ci suñum penc ay député arab di leen wax majlisu nuwaab nuwaab plurielu naib la maanaam ñun ñëpp mënuñoo toog assemblée wax dëgg yàlla dañuy tànn ci suñ biir téeméeri nit ak juróom benn fukki nit ak juróomi nit tànne ko ci biir dëkk bii nu nekk muy Dakar tànn ci département yi génn dem ci arrondissement yeeg région yeeg yooyu dajale lépp muy téeméeri député ak juróom benn fukk ak juróom umma bi jóg nañu dem ca urne ya tànn ca liste ya ndax ma tànn juróom-ñetti liste ñu tànn ca liste ya ñi nga xam ne jàpp nañ ñi ñii buñ leen yebalee daañ fa taxaw taxaw ba rafet ñu tànn ba liñ tànn gis ngeen ni mu tëddee tabaarakallahu yàlla yàlla def ci barkeeg tawfiix te gaa ñi déggoo liggéey nag waaw di dëpp ak dippi waaw di waxoon naa ca bi muy laata ñëw buñ jàpp mukk ne wate euh, woyof na ndax li nu doon def nii woyofut nga ne sam réew da ngay tànn téeméeri nit ak juróom benn fukki nit ak juróomi nit yebal leen foo xam ne lu ñu ne waaw réew mi yëpp ne waaw lu ñu ne déet réew mi yépp ne déet nga xam ne ñoom bu leen neexoon tey dañ naan réew mi kenn du fi takkatib ñaareel buñ ko wate woon fi nekk ni loolu jàll xam naa kon su boobaa aaw yu bare bare bari bu <laughs> buñ ko doon wate ñëpp ñu bare daañ wate tabarkàlla euh, wate wëy ala kulli xaal tànn nañ leen euh, noppi nañ ci tànn gi ña nga ca génne résultat yaak yu ni demee nuy dëgmal nag yeneen élection yoo xam ne yàlla nañ ci àgg te weesu ko ñu ngi ko tuddee élection présidentielle 2024 yàlla nañ ci àgg ak jàmm euh, te weesu ko waaye nag daas fanaanal dafa baax cib julit ab julit kenn du ko bett góor du bett góor góor du bett góor kon bu at mu ñëwee muy at mu bees ci gàddaay gi at mu bees ci doxinu weer wi ndax doxinu weer wi yàllaa ci gàllu sunuy ibaadaat yi ñu koy defal yàlla duñ ko jaamu ci août septembre octobre novembre décembre yàlla ñu ngi koy jaamu ci muharram safar rabiul awal weer woowu at moomu ñépp ko war a xam bu nit génnee àdduna jabaram nekk fii tenji du tàmbali tenji ga ci mois d'août la cinq août wuti quatre mois déedéet day xool calendrier bi nga xam ne ca la jant bay doxe weer ba kon ca lay doxe foofu lay dem seet fu mu toll ci weeru wolof niñ koy waxee ndax yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnaasi wal hajj sunu borom moo ne alayhi salaam yëg na ne ña ko waroon ñu ngi koy laaj waaw lu tax weer wi di def ni muy def nii di feeñ ci penku di feeñ ci sow mu ne ko loolu maa ko defee noonu ndax ngeen ci man di natt seen doxinu jamono moo tax ci weer wi ñu aj fi ne duñ aj ci weeru avril weeru juin déedéet aj gi day dañ koy aj ci zul xijja weeru aj ca aj weeru aj ca la aj kon bu tam xarit ñëwee li muy tekki mooy at mu bees mi dugg na at mu bes mi dugg na jombul ba am juróom-benn fan tey jombul waaye daal at mu bees mi laa bëgg wax ne dugg na ginnaaw dugg na nag am na at mu jeex 1443 moo jeex 1444 moo taxaw 43 dem na 44 moo ñëw ginnaaw 44 ñëw na nag moom la ñuy jéem a dàkk incha allah. dox ak moom ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiix bañ man koo jeexal yàlla ñu ko jeexal ñun ñëpp eh, tabarakallah ñi ko jeexalut ñi ko jeexalut te dañoo faatu yàlla na yàlla yërëm leen boole ca sunu jarbaat bële génn àdduna ca France mama Khady Gueye yàlla ko yàlla yërëm waaw ak ñi ngeen ci xam yéen ak ñi ci xam ñun ak ñiñ ci bokk xam ak ñi nga xam ne xamuñu leen yàlla na yàlla yërëm ñëpp tam xarit ñëw na am na ñu fekk hôpital ñu nga tëdd ca lal ya yàlla borom bi saafara leen bañ dellu seeni kër tam xarit ñëw na am na ñu fekk ñu tukki yàlla ñu bési ci jàmm noonu lañ ko toppee moom ak mu bees moomu jàpp ne kon calendrier ñëw na ñu koy xolli ndànk-ndànk yàlla ñu ko xolli ba mu àgg ñu àggaat ca zul hijja muy weeru aj buy ñëw yàlla ñu fekk ndax bi muy dem fi la nu bàyyi mbokk weeru tam xarit bu taxawee rek xel yépp dem ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax Omar ibn Khattab moo leen lënkale Omar gi ak rañaan gi ay eh, nga gàddaay kon ngeen baal ak weer wi moo leen moo ak date bi moo leen lënkale ndax jamono ñëw ñu tiim ab lettre lettre bi xamuñ kañ la fi ñëw xam nga tey su may def émission nii daat ne ñoo ngi ci ñoo ngi ci euh, Oustaz Sall en ligne daal di xam ne tey la la cinq ci weeru août deux mille vingt deux këyit woowu bu fi nekkee lu yàgg yàgg yàgg ku ñëwaat da nga xam ne émission bi date bi ci la amoon. xam naa sax ba demee ci archive yi euh, Sénégal 7 daa ci mën a fekk archive yi kañ la kañ lañ tàmbali woon euh, Oustaz Sall en ligne dañ ko xam lu dat yooyu nag moo amutoon ci tàmbali bi Omar ibn Khattab jàmbaar jooju daadi di taqale dat yi dat bi ak gàddaay gi ba suñu nee yi rek xel yëpp dem dem ci tamxarit bu ñu nee tamxarit xel yëpp dem ci gàddaay doonte sallallahu alayhi wa sallam gàddaayul ci weeru tamxarit kon lënkaloo boobu daan nay am gàddaay nag mooy lan mooy ku joge fenn dem fenn looloy gàddaay ku joge fenn dem fenn benn nga rawale sa diine mbaa nga wuti loo am mbaa nga fekk sa yonent ak tabaraka wa taala loolu mooy gàddaay alayhi salaam juddoowul madina déedéet makk la juddoo fa la màgge fa lañ ko yónnee mu jóge fa gàddaay dem ilal madina munawara fekkoon mu tudd yasrib kon gàddaay mooy joge ci barab jëm ci barab loolu nag suñu borom tabaaraka daf koo mooñ ci nit ñi daf koo mooñ ci nit ñi mooñ ko ci bàyyima yi mooñ ko ci picc yi ba ci njéeréer yi sax criquet plérin yi dañ ko cee mooñ maanaam jóge ci barab dem ci barab boo seetaan documentaire rabi àll yi léeg la ñu dëkk fenn ba gis ne ñax ma wow na wala jeex na wala wala wala ñu jóge fa ñoo am daal dem feneen ba demee boori Saalum am na picc yoo xam ne booru Risaato la ñu jóge gàddaay dem Saalum walla Bawal ci biir nawet bi nii bi bi jeexee dañuy ñibbi loolu mooy gàddaay alayhi salaatu salaam def ko jóge Màkka ñëw Madina xale yaa ngi koy def ci Afrique di gàddaay ji dem Europe nit ñaa ngi koy def di gàddaay seen réew dem Amérique réew yu baree bari boo fa demee fekk fa ñoo xam ne dëkkuñ ca réew ma dañoo gàddaay ñëw fa alayhi salaatu salaam gàddaay jóge Màkka ñëw Madina àdduna nag léeg-léeg ñu tudd ci clandestinité boo xam ne bi def nañ ne daf ci am dëgg la kon su boobaa waa àdduna ñoo war a góorgóorlu ba clandestinité boobu nga xam ne moom lañ ciy coow ak di ko ci wax ñu fexe ba dindi ko ci su fekkee mën na cee dañ te mooy ku jógee ci senegal jëm Europe mu yomb ci yow ku jógee ci Europe ñëw Sénégal moom yomb na foo mën a jóge rek boo bëggee ñëw ñëw li jafe mooy jóge fii dem feneen moo tax lislaam découragé wul ki gàddaay déedéet da ko wax rek ku dëkk fu neexut fexeel bam neex boo góorgóorloo ba sa kamtalaay kàttan neexut jógeel fa neexut dem fa neex loolu mooy gàddaay alayhi salaam def ko façon bu bu yéeme bu am solo waajal ko waajaay woo xam ne euh, niteel ko ndax ñaari tukki la mës tukki tukki yu historique moom alayhi salaam bu fekkee noonu lañ koy waxe benn bi mooy bi mu di jëli julli benn mooy bi mu gàddaayee jóge màkk bi mu di jëli julli tukki boobu du tukki bu nite jógewul ci aw nit jëmul ci aw nit moo tax tukki ba nitewul daa ba noppi ñu ne ko kaay wuyu bi ba jëlaat seet mu dem ba jël si tukki boobu nitewut moo tax àndut ak nit waaw dañ la koy wax nga gëm ko waaye moom àndut ak kenn benn journaliste couvrir wutoon tukkeem boobu du benn journaliste kenn accompagné wu ko woon ba mu daal lay def conférence de presse wane daa tukki woon ñenn ñoo ko est-ce que ñenn ñoo ne ko tukki lan daal di koy weddi gàddaay ngu noonu at mu bees mu duggee rek xel yépp dem ci waaye doy nam njàng sëkk nu jàng nim mu ko waajale ndax tukki bu nite la mu waajal ko mën nga ne ñaari at ku bokkul ca tukki ba yëgoo la tàmbalee ca réunion ba waajaay wa bis ban war a génn état bi ñu war a jaar fañ war a dem seen première étape deuxième troisième ban bis lañuy ñuy àgg bañ àggee la xewlan la yooyu yëpp mi ngi ko ci defoon sallallahu alayhi wa sallam euh, kon ci leçon yi ñu jàngee ci at mu bees mi ca la gàddaay bokk ba ca tege bu at mu jeexee ñu génn mille 1443 dugg 1444 dafa am leneen luy xew moom te mooy muy man mii di wax yéen ñi seetaan ku nekk ñun dem seet la muy denc ndax adduna daa am koo xam ne kii day liggéey ñu koy fay liñ koy fay yem képp ci ay besoin mu am kuy liggéey ñu koy fay liñ koy fay munta couvrir ay besoin mu am kuy liggéey ñu koy fay liñ koy fay ay besoin mënu koo jeexal ku njëkk ki du denc dara ku ñaaral ki du denc dara troisième bi moom mi ngi denc ndax moom li muy am ëpp na ay soxlaam kii li muy am mëtul ay soxlaam kii li muy am ci soxlaam la yem képp bu at mu jeexee kee jarul muy seet ndax dara nekku fa kii jarul muy seet ndax dara nekku fa waaye troisième bi nag nga xam ne li muy am ëpp nay soxlaam kooku dañ na ko moom demal nga seeti la nga doon denc nu mu toll demal nga seeti la nga doon denc nu mu toll mu daal di ñëw wut bindukaayam dem ci Ablaye Wilane Niang bijoutier ne ko or un lu muy jar ma misaal ko mu ne ko treize mille mu ne ko or de lu muy jar par gramme mu ne ko dix huit mille mu ne ko troisième or lu muy jar mu ne vingt et un mille soo ko seetloo am na ñetti prix or un treize mille or deux dix huit mille or 3 21000 ñetti xeeti or la am bu ci nekk ak mu daan ne or 13000 or 13000 plus or bi jar mill daan ne plus or bi jar 21000 égale cinquante deux mille bi mu boolee treize mille dix huit mille vingt et un mille dafa am cinquante deux mille maa ngi jéem a wane nan la ñuy compter sunu am-am biñ denc ba xam asaka war na ci am déet ni ngay def mooy dem ci or yi ñetti or yooyu. defe naa ñetti oraam bu dee ñeenti ngeen wax treize mille dix huit mille vingt et un mille ci missal mu boole treize mille plus dix huit mille plus vingt et un mille mu jox ko cinquante deux mille mu daal ni cinquante mille divisé par trois mu jox ko dix sept mille trois cent trente trois tuuti kon nga ne dix sept mille quatre cent dix sept mille quatre cent mu daal di jël dix sept mille quatre cent dix sept mille quatre cent lay daal di jël multiplier ko fa quatre vingt cinq mu jox ko un million quatre cent soixante dix neuf mille moom nag mu daal dem ca banque ba bu fa fekkee un million quatre cent soixante dix neuf mille jëm kaw l'islam ne ko yow azaka war na la bu fekkee daa ñëw def calcul yi fekk fa moins de un million wala mu fekk fa un million deux cent mooy asaka waragu ko asaka waragu ko bi mu defee nag calcul bi résultat yi un million quatre cent soixante dix neuf mille la gis ñu ne kon war na la nu mu koy defee mu daal di jël ko diviser ko par quarante mu jox ko trente cinq mille trente six mille 975 xam naa Pape Ngagne dana ma mës a benn benn benn écran comme écran yi fi nekk macha allah affaire yaa gi avancé écran boo xam ne incha allah noonu ko gars yi di laalee ko bind ñun tam ñu koy laalee ko bind ko noonu wala benn tableau boo xam ne bii jombul mbuuba gars yi nga xam ne ñooy liggéey ci yëf yi daanu ko mën a wutal ba mu ñu defatee ci calcul yu mel ni ñu mën koo calculer way seetaan yi ba ñu mën a xam euh, affaire bi naka lay demee macha allah loolu mooy bu at mu jeexee képp kuy liggéey di denc kee di liggéey di lekk ba mu jeex kee di liggéey munta couvrir ay besoin ñoom nun la ñuy def léegi nag bi mu ko gisee nag ba mu gis taux bi mu war a génne sunu borom am na liste boo xam ne bi ñooñe lañ koy jox waaye ca faqir lañ tàmbalee nag faqir mooy xale yu góor yi nga xam ne foo leen fekk ñi ngi jaay ndaamaraas ñi ngi ci parking yi fomp oto yi ñi ngi ŋàbb seeni bagage di wër waaw ñee ngay jaay ay kuddu ñenn ñaa ngay jaay ay musuwaar xale yooyu kenn gënu leen yey ci azaka rawatina azaka yi waaw rawatina azaka yi su ko defee loolu benn tomb la bu am solo ci bu weeru tam xarit duggee ñu mën a calculer sunu alal yi bu dee ko yor ak jur xar ba béy ak nag ak gëléem fu mu amee quarante xar asaka war na ca trent gëléem ah trente nag kon ngeen baal ma asaka war na ca euh, cinq gëléem asaka war na ca ay fasaki mbaam nag asaka waru ca alal li fas no alal mbaam non bu fekkee nag waa ji day jënd ay fas di jaay kon fas ya du ay fasu waruwaay waaye fas ya su boobaa euh, marchandise la wala koo xam ne kii dafa am benn site internet ba am monitation nga xam ne vie ba mu am xaalis lay tekki moom tam su at mi jeexee war naa def calculam xool kon ba lu fa nekk loola fa nekk mu def ko nii ma wax nii su ma tee un million six cent nangam jëm kaw résultat ma waxoon léegi asaka daal di cay war deux virgule cinq pour cent mbokk yi bu at mi jeexee yii daa bokk ci tomb yi ñu ci war a seet seet nag at mi nga génn daaw noo ko dunde yan moo la ca dérange ci yow sa bopp yan nga bëggutoon mbooloo mi gis ko yan moo la ca neexut at mi weesu lu la ca neex loo ca saraxe mbaa meloon di nogay fukki weer ak ñaar toog ko mus ta saraxeb téeméer ñaar nogoy toog ko mus sa saraxe kilo pep lii pep bi nogoy di jënd dana fa am juróom benn weer te du jeex mu di ko sarax mbokk yi bu ngeen xoolee seen montre 18 vingt cinq jot na su ma saana jot ci la ñu yëkkati xaaj bu njëkk bi bi doon waxtaan ci tam xarit ak bind yi ci am at mu bees meeg gàddaay yonent beeg sunu alal yi ñuy génne tabarakallahu suñ ci accès kon yëkkati sunu jataay bi foofu dalal sunu gan gi jóge ci rédaction bi ko defee mu ñëw indi ay laajam laaj bu yomb ma tontu ko bu jafe ma gàntu ko yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen mbokk yi ci seetaan mi ngeen di seetaan Allo Oustaz wala boog Oustaz Sall en ligne jërë ngeen jëf ci ànd mi ngeen di ànd ak Sénégal set ci biir réew mi ak ci bitim réew xaaj bu njëkk bi jeex na maa ngi ci xaaj bu ñaareel sunu mbokk mi jóge ci rédaction ñëw na muy Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. xaw naa laa namm de. man de dama na namm moom. bàyyi nga am jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax. bisimilah ñu ngi lay dalal. alhamdulilah di la bàyyi nga nuyoon te booy jëg nuyoo ziar la massa walla coono. jërëjëf yaa ngi woon ci mission yi aussi. waaw waaw walaay ndeysaan fan ñu weesu. Mm-hmm. donc di euh, euh, nuyu bu baax mbokk internet yi fii ci réewum Sénégal ak mm-hmm. euh, diaspora bi. Mm-hmm. jërëjëf léegi tey moom mbokk yi nee lan nga indi. waaw li ñu indi. bokk na ci wàllu politique. waaw ndax jamono ji looloo xew. niñ koy waxee ak élection législative yi nga xam ne jot nañu ko amal ci dimanche bi ñu weesu. gis nañu ne mbir mi. Euh, ñu ngi doon ragal ay xeexoo yi ci am. Mhm. waaye askanu Sénégal wanati na àddina. Mhm. ne askan bu mature la. Mhm. bu xam euh, luy taxawaayam la. Euh, mbir mi nu mu demee yëpp ak vote bi. yow ban gis-gis nga si am ak jàngat bi nga ci def. alhamdulilah bisimilah rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka am lu ñuy wax carte d'identité. ci ginnaaw am carte électeur léegi kum doyul aw yet hmm. boo gàddaw yet doo xeex <laughs> waaw hmm. parce que carte yooyu mën naa duma kart yooyu mën naa duma mooy xeexukaay bi kon hmm. loolu loolu la maas bi di tàmbalee xam xeex yi jëru ko xuloo yi ko saagante yi jëru ko lépp jëru ko moom daal lii ngay wuti rek sa carte électeur daal di koy ŋàbb léegi boo ne ko cabax fa nga koy cabax booy waaji mhm. dóor bu fekkee da ngay dóor dóor nga ki nga mere mhm. foofu ngay far moom donc loolu fi la fi la fi la Sénégal di won adduna si yëpp ne leen nun mën nañoo coow mhm. waaye bu ñu accès def li war a def adduna nag sunu borom dafa dafa dogal ki dul wax day def ki dul wax day def kii wax nag du def réew yi ñu wër yëpp nun noo am sansu di wax moo tax duñ def wolof nee na xaj buy matt du mbaw ginnaaw ñu dañu ubbi téléphone yi di wax di wax ci rajo ya di wax ca télé télévision ya di wax ca penc ma di wax ci internet yi fu ñu fay wax hmm. moo tax duñ jëf hmm. loo am solo la hmm. donc kon gudd gàtt rek mooy xeex bi jëru ko xuloo bi jëru ko man tam lii rek laa ci séentu woon parce que élection yi ma sa àgg rek lii moo cee am lu mu métti métti métti dank fanaa na léegi yëpp li muy tekk rek mooy teg lépp ci suuf daa def li ñu war a def te mooy dem ci urne ya tànn li ñu war a tànn dem ñibbi toog jàpp suñu télévision yi wala suñu rajo yi seetaan eh, résultat yi d' accord mm. d' accord beneen question bi oustaz ba tey ci mbirum élection yi mm-hmm. eh, gis nañu bu ñu demee ci Benno Bokk Yaakaar par exemple mm-hmm. ci atum 2017 mm-hmm. ñoom ñi ngi amoon lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ba juróom-ñaari député mhm. euh, bii yoon en 2022 ñu gis ne ñu ngi am juróom-ñett fukki député ak ñaar mhm. mu doon euh, loo xam ne lu bëri wàññeeku na ci mhm. loolu lan la ci Benno Bokk Yaakaar ci sa xalaat war a jàngat li mu ci war a jàngat mooy laaj bi am na solo député mooy xale bu ñu yónni député mooy xale bu ñu yónni demal ci bitig ba nga jëndal ma kilo farine xale bi nu war a def dem ci bitig ba jënd kilo farine indi boo yónniwaat moom nga jëlaat yónniwaat ko ah bu fekkee da ngaa yónni xale bi kilo farine mu dem jënd liibara baa mu tuur ko coon doo ko yónniwaat hmm. député yooyu ñu tànnoon téeméer ak nangam ci benn liste dañ leen yónni woon assemblée ne leen dee leen wateel lu ngeen gis ne daa jëm su ci nar noo lor dox leen suñ digganteeg moom lu ngeen seen nu ñàkk ko te war koo am dem leen ngeen jëli ko député yee toog treizième législature bii xam nga ne ku nekk ci penc mi xam nga ni mu demee mm-hmm. nu toog suñ kër seen leen nu war noo waxal ñuy dóorante korpañ nu war noo waxal nuy saagante xeer bi def na nañ kon ñun ñi ñoon woon fëriñ ci bitig ba jëndal lu nu fëriñ këriñ lañ ñu jëndal wala wala wala wala léegi nag su boobaa duñ leen yónniwaat loolu dama la kat am na fi fi dox yu bari yoo xam ne dañ koo sant député yi ñu gàntu am yu ñu war na def defuñu ko bu ñu watee benn ministre budget ne ko yaa yor ministère gi dañoo bëgg añ supp kànja lañ bëgg añee jokk fukki junni mu toggal ñu supp kànja boo xam ne boo sefee ñeex bi ca suuf la jëm député yi ñoo war ne ko yow lu la lan nga dugg <laughs> waaw loolu mooy contrôle li nga xam ne moom la député yi war di def mm-hmm. ci budget ministère yi mm-hmm. bu fekkee ko ñu watal budget bu déwénee ba ñëw dina lay watalaat rek ana lañ la wateeloon. contrôle de l' action gouvernementale. jeex na loolu bu ñu defalul loolu nag léegi dinaan kon ñu député yi lu ñu ko dee. dëgg dëgg loolu moo wàññi li li Benno Bokk Yaakaar doon am. Mhm. loolu moo ko wàññi ndax politique ay engagement la ay jëf la. Mhm. ay relation la waaw relation yoo xam ne euh, doomu aadama ak doomu aadama rek ñoo ko man soo ko jëriñut loolu nag mhm. ah, mën na laa teg ni tege moo moo moo indi lii nag jóge mm-hmm. ci téeméer ak nangam mm-hmm. ñëw ci juróom-ñett fukk amatoo téeméer loolu loolu lay tekki mm-hmm. waaw te it ab joxañ la ba am solo d' accord gis nañ ba tey ki nga xam ne mooy jiite woon seen liste sur le plan national muy Aminata Touré ba ci bureau de vote am dañ koo gañe woon foofu aussi beneen signal la boo xam ne moo gën a sax xóot bi nga xam ne mooy mooy biñ leen wan par rapport ak député yi wàññeeku waaw mooy boo soree saw xeet ba soxla leen ñëw bokkut ak boo nekkoon ci saw xeet ñu lay gis nga leen di gis loolu la maanaam politique daa doon loo xam ne buñ ko jàppee rek ne mor xuja moo jóg wala soxna aminta nangam moo jóg léegi kon moom na ne ci kanam affaire bi gën naa xóot loolu moo tax am ñu bari ñoom dañu leen ci seen seen euh, bureau yi nga xam ne fa la ñu fa la ñu watee léegi nag loolu dafa am am njàngat mu ciy nekk mooy nan laay def ba bu ëllëgee ma gañe ko mooy damay teg sama tànk ci wàllu penc bi bokk ak nit ñi li ma bokk ak ñoom di leen gis ñu may gis ma yomb leen yomb ma alxuraan dana wax yonent bi alayhi salaatu salaam wax fi janaaxaka li ne tabaaka minal muminin na nga fexe boobu kenn ànd ak yow ragal la loolu la ko wax nanga nga fexe boobu kenn ànd ak yow ba noppi ragal la na nga fexe ba nit ñi ñeme la soxlaal la nga soxlaal leen ngeen àndee defar pinc bi donc loolu mooy daal yenn ci yenn ci tête de yi mhm. ñu wote fenn ñu gàñe leen seen bureau c'est ça waaw d'accord jërëjëf euh, beneen question bi oustaz euh, avant dernier question bi bii mhm. nag internet yi ñoo bëggoon xam naka nga gisee taxawaayu Ousmane Sonko euh, ci campagne électorale bi naam ne sax liste ba mu bokkoon dañ koo écarté jërëjëf doon nañ ko topp ci euh, campagne bi mhm. gis nañ ne am na côté bopp su ma jege woon buy campagne danaa ne ko waxeel nii mhm. moo di xam nga campagne mooy da naan nit ñi maa ngi nii maa ngi nii ci moom yàlla may na ko macha allah jërtul mu naan maa ngi nii am nit mhm. waaye nii laay doxale gi booboo des nii laay dox léegi mooy bu mu ñu demee assemblée nationale danañ fa def nangam danañ fa génne nangam danañ fa yokk nangam danañ fa wàññi nangam loolu moo doon message su kuy kuy kuy campagne pour nekk député malheureusement xam nga bi nga bi ñuy tàmbali am na joxur joxur yoo xam ne boo boo demee vitesse boobu mën naa am doo doo doo doo doo doo mën a wax li nga bëgg a wax ci wàllu boobu hmm. leneen ngay wax parce que loolu léeg-léeg. mer mi moo lay wax loo xam nga ngay bëgg a dem ci campagne ñu ne la waroo dem nga ne danaa dem dem ba mu yàgg ñu ne la sa liste bi barab sàng ma baaxut barab sàng ma baax te soo seetloo benn bokk yaa benn bokk yaakaar ak ñoom Ousmane Sonko euh, euh, Pastef bu bu bu liste bi sikkee liste bi sikkee rek dañoo boole rek def ci kii bu mbal ma ñëpp dem. waaw ñoom ñu bokk dem. waaye fi ñu ko def mooy yow sa liste bi lii moo baaxut léegi nag lii moo baax li baaxut nag ci nga bokk yow moo tax sa sa sa sa sa kii sa nataal bi ci feeñ mm-hmm. ma ne loolu boo ko déparé ci campagne bi mën naa am da ngay wax jenn wax joj daanaka li koy firndeel mooy niñ ma def nii neexuma ba baa ngay àggal mm-hmm. mais teewul nit ñi ñoom eh, gis naan ko ba noppi déglootuñu message bi ndax boobu la wala déet moom na ñëw rek na ñëw rek li leen li leen li leen li ñàkk li leen xaw a xañ dara sax mooy li ñu naan ku dem région sàngam carte sàngam ngay watee ku dem département sàngam carte sàngam ngay watee loolu dafa bokk ci lii xam naa dañ ko bàyyi xel beneen yoon intercoalition bu fekkoon carte yi lépp benn bi rek la mm-hmm. bu boobaa mu gën a métti ci ñële de. bu boobaa mu gën a métti ci ñële. malheureusement ci kaw nañu ne boo demee si département sàngam carte ba bii lay doon. ba demee ci barab sàngam carte ba bii lay doon loolu dafay dafay lëndëmal kii waaye su fekkoon benn carte la unique. noonu ko Benno Bokk Yaakaar amee noonu ko waa PDS amee wàllu. su fekkoon Pastef noonu lañ ko amee woon macha allah ba naa raafal lu ëpp lii mu am nii. dëgg donc gis nañ li mu campagne macha allah. Euh, yooyu rek moo ci am ci génneeku waaye euh, lu am solo la. waaw boo boolee lépp nag bi chaque na am da ngay wax ne campagne bu bu am solo la ah, ndax mën nga ne réew mi yëpp war na ko mhm. te di di campagne ñu lay may xaalis moom xewutoon démb mhm. <laughs> wax dëgg yàlla wax dëgg mhm. alhamdulilah d'accord jërëjëf euh, question bi mujj oustaz balaa nga ñuy dénk mooy lan la ñu mën a xaar ci député yi nga xam ne ñoo war a composer quatorzième législature bi laaj bi am na solo la liñ xaar ci ñoom mooy na assemblée indi xar kanam bu bees bu wuuteeg assemblée yi fi daan am ndax nii ñu ko fale falin wu bees la jamonoy Senghor ba ci président Macky yal na yàlla yokk ko wér musuñoo dem assemblée mukk listu état tollook yeneen liste yi musul am te état mi am quatre vingt bu gaayee boole li ñu am am 83. ëppale leen ëppale leen benn. kon assemblée boobu daa war a indi xarkanam bu bees. xarakan bés mooy député yu bokkut ak député fa yi fi nekkoon député yi doon ñoo xam ne danañ wax ci sunu pétrole bii indi ci loi loi yu nu cëng ñëpp di ko gis ñu wax ci njàngale njàng mi njàngale mii député yi waxit ci daara yi ci daara yi 40 pour cent yi ñuy def ci budget bi ci éducation nationale député yi wax ci lu lu tax daara amu ci. contrôle bi ba tey. ah contrôle bi mhm. bu bu xaalis jógatee ñëw ci assemblée. Mhm. député yi xam fu mu jóge fu mu jëm ak lu tax. Hmm? xale yii di génn Sénégal di dem ci géej gi di faatu ci àll bi. Mhm. député wax ci. accident yi guddeeg bëccëg rëjëx rëjëx ji nekk ci dëkk bi député yi wax ci ñi nekk bitim réew liggéey ba man fa dara bëgg ñibbisi si seenum réew député yi wax ci ñoom am na leen lu leen doy sëkk am na leen doy sëkk soppi nag xarkanamu bu bu bu ministre ñëwatee bañ wateel ko budget bu del see ñu ne ko lañ la wateeloon anamu ah mhm. indi fi loi yoo xam ne of naag mii dana dana gën a gën a dëgër ba nga xam ne créé mii dana gën a dëgër su ko defee sunu alali réew di génn ci réew mi di duggaat ci réew mi. yorin gu sell maanaam. yorin bi yi fexe ba léegi ku fe tooñati. ñu teg la ay ay daan. du doon daan yu tëj du doon daan rek du doon daan dara. Mhm. waaye am na lu ñu la mën a teg loo xam ne dañuy jóge ci ñoom di la waat ci ci ci penc bi. Mhm. jàmm ne ñooy. loolu daal ci tënk ndax gën naa yaatu loolu waaye daal député yi war nañoo bàyyi xel ci loolu bi ci des boo ko jaxale mooy damay wax toujours bañ tàmbalee léegi surtout Yaasin suñu borom dafa jàngale rôle benn député waaw député bu am solo nga xam ne dafa ñëw min aqsal madinati rajulun yas'a ba mu agsee xaala yaa qawmi tabi'ul mursalin député bi def ne dafa ñëw fekk peuple bi am problème ak kilifa yi peuple bi euh, wadrib lahu masal ashaab al qarya bi ñoo am problème ak euh, euh, ak kilifa yi xam nga noonu sunum réew am na ko mun fii da nga am problème ak kilifa yi kilifa yi politique yi ak kilifa yi si bi député bi ñoo leen ittabiul mursalin waaw ah, déggal leen kilifa yi mm-hmm. ittabiu ma laa yas'alukum ali ajran wa hum topp leen ñoo xam ne ñii jub nañu te duñ la laaj dara mook ñoom mook ñoom ba mu jeexal dañ koo rey hmm? waaw député dañ koo rey biñ ko rey nag suñu borom ne ko képp ko def nii nga def jaar fii nga jaar yaa ngi defar sama réew yaa ngi koy waxal hmm. kon yow fii teraanga rek laa la ameel lu mu wax yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafar li rabbi wa jaali min al mukramina donc député loolu rek la boo amee sam réew sam réew la sa bopp hmm? nga doo ci am lenn loo ciy ragal réew bi fi nekk nii kenn du ko génn nun ñëpp tabaarkalla député it du nekkul loo xam ne waa ji daf koo nekk xaw ma daf koo doon daf koo nekk mm-hmm. wax naa sànq ma xutba ci jumaa ji bisi ngi ñëw ñu dégg ne député sàngam décédé na mhm. mënoo ci dara wala député sàngam bokkul ci ma bokkul ci mandat mi loolu tabarkàlla nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp mhm. ñaan borom bi yàlla nañ jeexal ci jàmm ba falaat yeneen député député yaa fekk ko nun tam nu fekk ko mhm. fekk mandat bi ñu naan sunu mandat député yi mooy meilleur mandat mandat yëpp bee ci gën mu jëg noonu ñun ñëpp amiin jërëjëf macha allah loo ñuy dénk Oustaz kon waaw li ma lay dénk mooy li ñu dee fagaru mhm. fagaru fagaru mooy li nga jot a am mhm. fexeel ba bul ko ñàkk fagaru mooy li nga jot a am fexeel ba téye ko li nga amagut nag loo ca mën a am te mën ko ci yokk nga def ko te def ko ci ngor ak jom mhm. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal waa rédaction. jërëjëf Oustaz. mbokk ñoo ngi yeewi sunu gan Cheikh Abdoul Khadr daal di ñëwaat ci jotaay bi incha allah fii ak jëf. mbokk yi jërë jëf Cheikh Abdoul Khadr jërëjëf euh, waa jërëjëf kon nag euh, xaaj bi ci mujj moo di. xaajub ñi daan seetaan te ci bitim réew mi ak ñuy seetaan te nekk ci biir réew mi su fekkee buumu téléphone yi noonu la ñu jox ma leen ku ci woote ci 77 883 41 83 ñu jël ko ci 10 minutes yi nga xam ne moom lañ dese jàpp 15 minutes waaw 77 883 41 83 ñu gis nag ne. ba ñu ba ñu toxoo ba léegi nag <laughs> eh, xam naa toxu dafa yombut ndax fiil yeeg yëgal yeeg wàcc yeeg yooyu wax dëgg yàlla ñu ngi defar studio baa ngi gën di rafet macha allah Pape Ngagne jaajëfal nañ ko ak gaa yi nga xam ne ñoo ko jàppale techniciens yi eh, lépp ñu ngi gën di rafet macha allah waaye daal ñu nga gëj a amee téléphone ca sunu kër gële nga xam ne ca lañ dëkkoon a nekk waaye ba tey maa ngi yaakaar ne téléphone bi tey daan ma ko jox 77 883 41 83 15 minutes moo des ndax 18 heures 45 jot na ñu doon waxtaane lu jëm ci tamxarit ak i bindam tamxarit ak i bindam at mu bees la dañ koo taqalee gàddaay gi war cee natt suñuy asaka am na nag ay xew-xew yu ci yàgg xew ndax bisu tamxarit maanaam fukkeelu fan ba ca la firaw na laboon ca la firaw na laboon ca la Moussa amee ba diggante ak firaw na ba fa mujj Ashura la jeexe woon waaw kon loolu xew-xew la yonent yi yu bare bare bari am nañ ci ay xew-xew Yuusufa ba ko ay mbokkam takkee gémmiñam takk ay loxoom escot sa gémmiñ ga sànni ko ca teen ba bisub tam xarit la génnoon teen ba allo waaw waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay delloo siyaar fooy woote Mbay Juuf di woote ah Mbay naka waa Côte d'Ivoire ana Alassane Ouattara aca bisimilah yéen a ngi am foofu ah. ma ne abonné ngeen Sénégal 7 ma ne yéen am foofu Sénégal 7 waaw góore waay très bien ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah allahu akbar allahu akbar ndeysaan jërëjëf lu jot yomb waaw nga war a jox allahu akbar yàlla na yàlla na yàlla yokk sa wërsëg yokk ci barke yàlla na yàlla yokk sa wërsëg yokk ci barke. Mhm. dëgg la waa Russie daañu la ko jox incha hmm. jërëjëf jërëjëf Mbaye Diouf Côte d'Ivoire lay woote nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi bokk na ci ñi abonné ci seen bi ba di ko aimé di bind seeni kër di laal cloche notification bi eh, jaajëfal nañ la Mbaye Diouf ak ci sénégalais yi nga bokkal nekk foofu yëpp di leen ñaanal barke ñoom Collé Aminata Diop fa la nekk ak ñoom Sanu Lay ak siideeg xale yaak ñooñu ñoom ñëpp ñu ngi foofu di ànd ak ñun jotaay bi 18h moo jot ba te 48 minutes bu leen neexee ànd ak bi ci jotaay bi ci 77 883 41 83 nu ànd ci jotaay bi nga xam ne mooy Oustaz Sall en ligne ngeen koy am benn yoon ci ñaari vendredi muy table 18 di jeex 19h mbokk moomu kon andiwutub laaj. ay ziar la indi ñoo ngi koy delloo ay ziar di ko béggee mane ne tam xarit yi ci xew yooyu xew ci yonent yi daf cee bari lool alayhim salaatu wasalaam waaw dana ci xewit ay xew-xew yoo xam ne magi daara yi ñoo daan wax goney daara yi dem leen taaja booni magi daara yi ñoo daan wax goney daara yi dem leen taaja booni dem leen taajiboo ni li mu daan tekki mooy dem leen yalwaani ñu dugg dëkk bi di tari soo sóoratu naj mi wa naj mi jeex ñu ne àllay nga ne isaa hawa jeex ñu ne àllay nga ne ma dalla jeex ñu ne àllay saahibakum jeex ba baa wa naj mi di sori ko defee ñu joxe ñu joxe euh, nu mu ñu joxe euh, taajiboon waaye mbokk yi jeexal kuy xalam di ca jaayu maa ngi woo waa senegal set bi monsieur le directeur ak suñu mbokk mbuub maan yeeg ñëpp mardi li tàmbali dix heures ba dix huit heures nu ànd ñun ñëpp ngeen fekk ngeen fekk ma foire internationale de Dakar mardi kuy xalam kat di ca jaayu <laughs> allo way waaw ñoo ngi lay delloo mbokk mi fooy wootee maa ngi wootee taw bi doon taw Dakar agsi na Kaolack waaw ñu lay déglu ñu lay këraan ah jërëjëf alhamdulilah di la fii <laughs>

barke bi ci Muhammad sallallahu alayhi sallam amin dana ko dégg incha allah ak kii keneen ki waaye la ah Mbacke allah <laughs> ñu ngi bëgg lépp jërëjëf d' accord jërëjëf mbokk moomu lay wootee fala al imam Alioune Badara Ndaw dëkk euh, suñu imam jooju nga xam ne tabarakallahu benn sikk rek la am mooy bëgg mburu ñu ngi koy nuyu baax a baax di nuyu mboolem foofu nag xadara la boo xam ne bii bu am solo la ci wàllu xam-xam Kaolack benn xadara la bu am solo ci wàllu xam-xam Saalum gépp sax ngay wax ndax Saalum moom benn affaire la waaye mbokk yi maa ngi woon ci sama woote bi su mardee na ñëpp ñëw euh, fële ci foire de Dakar bu ñu ñëwee ñu ànd fa waxtaan ci Ashura am fa benn thème bu tudd jafe-jafe ñu néegi sëy yi ak tas yu bari yi lu ko waral al oustaz Ahmed Dame Ndiaye moo koy def su di jotee bu ngoonee ba trois heures jot jàpp trois heures et demi man maay jël jéem faa waxtaane tas yu bari yi ban solution lañ leen di proposer incha allah xam naa Pape Ngagne dana yebal caméraman yi yebal journaliste yi incha allah jombul ñu ñu ñu couvrir ñu ko waaw euh, couvrir médiatique incha allah ndax kuy xalam di ca jaayo ñen lañu ci des ñëpp ku ci nekk lu waayu sori sori mën ngaa bokk ci assura bi def leen ku muy seen yitte bokk leen ci ndax wali an yahdiya bika allahu rajulan wahidan xayrun laka min humrin naam def leen ci ndax balliqu anni walaw aaya def leen ci ndax fal yuballiq shaahidu minkum al ghaayib bokk yéen ñëpp def leen ci assura lu waay sori sori mën nga cee def ñëw te def nag moo daq xaaj Ibrahima sax daf daan wax ne su wootee ku mën a ñëw na nga ñëw ku mënta ñëw na nga ñëw waxin la am na fi benn xale ñetti xale sax laay wax bëgguma leen a tudd ndax ñëwaguñu waaye réew mi am na léegi ñetti xale yoo xam ne koo ci yónni mu dem yónnent ba yóbbul ko ka nga ko yónni <laughs> tabaarkàlla yal na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen Sénégal 7 jataay bii mu leen di andil benn yoon lay am ci ñaari vendredi kon day tëbal benn vendredi ñëw indiwaat beneen incha allah kon bii di ñëw dañ koy tëb ba ca tege mooy am ndax bii di ñëw ci samedi ba dañuy am lu ñu tuddee ah oustaz Sall alu lañ koy tuddee alu oustaz muy am ci beneen seen moo waral bu ñu koy def fii def ko fële mu xaw a saf tuuti waaye bu ñu sañoon vingt chaque vendredi lay am mais nag. lu jëw a jeexul jógu fa sunu député yi nu fal yàlla na yàlla sàmm leen aar leen ba ñu mën a taxawee li ñu taxawee politiciens yeeg tubaarkàlla sëriñ Cheikh ñëpp rek ñu ngi bokk di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfiix di ñaan ci kër jii di Sénégal set yàlla na gën a soqaliku na gën a barkeel ñi fi liggéey yàlla nañ yokk ak déggoo waaw kilifa gi fi nekk muy Pam Ngañ yàlla na borom taal taal yokk ko barkeel tawfiix macha allah jaa ngeen jëf nuyu na leen ñëpp ziar leen. yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu